الأصابع billahi min asaytaan rajim bismillahi rahman rahim wa inni anzuha bika wa zuriyataha min asaytaan rajim rabbi anzu bika min amasat sayatin wa anzu bika rabbi an yahduruni jërëjëfe sëñ Touba est-ce que Serigne Touba Serigne Touba amut morom bokk jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di ndokkeel ci bis bu tedd bii nu nekk nga xam ni ci wàllu tubaab mooy le 5 septembre tax ñu ñëw defal leen émission muy bis bi sëriñ Touba julli woon ci bureau gouverneur julli gi nag yàgg nañ leen cee wax lu bari waaye tey dama bëgg murit yépp déglu attentivement te xam ni jaloore ak i manoore Serigne Touba moo ko am xam naa dinañ leen wan léegi photo yi muy bi mu jàkkaarloog ñi nga xam ni la ko jiitu dégg nga li nu ci Serigne Moussa Ka wax xamna naa jasaaw sàkkoor la indi tuuti mouride yi déglu ci li seigne touba def muy khat qala musa khadim al li liman nawatu khadim al khadim ya sari inabi an taxsimi yowmal xuruuxi seexinaa xadimi min daari fi kutaabi mbakke baari bi isni xaali xilbaraaya baari xarajtu yowma sabti zamin asar li xidmatil muxtaar fi shahri safar taarix ba mooy junneeg ñetti téeméer ak fukki at ak yett lim bi lay wóor mu ne nag su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xel yi dellu seeti kuy réer mbir day laaje xam lu mu amul laaj leen ki leen amal lu kenn amul gumba yi njàccaar laa ngi tee ngeen ne dem man ko xamul laajul ku xam xaw moo layam ku toppatul yàlla na topp waayam mbaalu ko dal bu mu ko xul fu laayam nañ jéem a topp yàlla toppi ndigalam te jéem a daw seytaane xàmmee ndugalam te jéem a roy roy lu rijaalulaahi te jéem a roy kulli jaanilaahi waaye la neex nag mooy la mu ne Bamba jagoo croix légion d'honneur euh, Serigne Touba ci bureau Ndar tey la muy jeudi le 5 septembre à 9 heures du matin Tu bi sur la convocation du gouverneur général le conseil privé s'est réuni dans la salle ordinaire pour de cette délibération ñan ñoo ko C'est suñ daam wan ma wan ma conseil privé boo demee photo bureau ndar le marabout Cheikh Ahmad Bamba di nga gis ñi toogoon nga xamante ne France ñoo leen désigné terek teg benn tribunal boo xam Afrique la ñu waroon tribunal Bobu. ci rëyaay ci doole ak disposition yi tubaab bi jël yëpp ngir génn jëm waaye nag lam ne woon euh, waaw bis baa ngi nii boo ko xoolee le muté gouverneur président mi ngi toog Kerchan Gillet commissaire décolonné chef du service administratif lii bisub tey bii la woon fot lii bisub tey bii la woon conseil privé tutélaire lamben conseil privé suppléant le secrétaire archiviste muté ngi noonu gouverneur président la muté Kershan Gilemon Stitopo, commissaire des colonels chef du service administratif Boyer, lieutenant colonel supérieur des troupes Jourquet directeur de l'intérieur par intérim Polic, procureur général par intérim Kalarak médecin principal chef du service de santé Ogare, lieutenant de vaisseau délégué du commissaire de la marine Bassiat conseil privé suppléant superviseur secrétaire art-service. ñii toog kenn ku ci nekk fonction yi nga yor tey la tir ñii tey lañ mës a toog ci bii jotaay te kenn ko waral muy ka nga xamante ne Serigne Moussa Ka na da daan dox di yor ñetti kaala yee joor rawaan yaa ngi ko daan fare wàllu nday joor bu nekkil di bindit boo ma ngay yëri mool bu bët yeey na la xol ba moom ma ngay xool bu cër yeey na la wit ruuga dem aras moom xanaa war na buraax mbaam mu war ca ay soom da laa du ko tee dem ca pays diwaan ca paas ya ngeen sàkkari jaale lay naan borom saar bi la sàmmar na saaru mbardaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furxaan bu injiil ñëwaatoon day mel ni Musaa bu tawrit ñëwaatoon mu far ni xisaa sa géeji xikam raw na géeju luxumaan sa waxtaani addis semmel na nuxmaan xasaayit yi nga feeñal mu nuy su koo móol ajaayib yi nga feeñal mu nuy su koo jeel ci kun lay téléphone xer ma raw na deppees xolam baa gën a leer lettre baa lettre bi nga gouverneur général muy euh, euh, extrait du conseil privé mi ngi nii après avoir examiné certains problèmes relatifs à la colonie le conseil approuvé la décision des membres ci sud désignés d'exiler au Gabon le marabout Cheikh Bamba qui doit être embarqué le 21 septembre 1895 une pension de 50 francs par mois lui sera accordée durant son séjour au Gabon andeysaan <laughs> Mourit, barke Cheikhul Khadim sunu Nous serions am jaloore Moi am manore, mooy ki nga xamantene kenn la ko amut ñaarel mo man ku jëkk mo man ku mujj mo man tay mo man ëllëg mo nam mom kep mo taxaw affronté nasaraan bii nga xamante ne kenn mësu koo def li am ndam yi mu am moo tax euh, yoon wu njëkk wa bisu bisu le 10 août le 9 août Ceerno Birahim rakkam ju tedd jëm moo dem Ndar waaye nag euh, kan moo ca topp euh, moom rek moo ca moo moo ca moo ca àndaat dal di ànd ak ñoom sëriñ ma bànji ñu gunge ko ci gunge boobu xam naa ci kanam tuuti am na benn extrait bu nuy wane sëriñ Abdou Samad moom sëriñ son yi mu indil ni ko sëriñ daam li nga mooy mën a waxal ci jasaaw sakkoor muy élément boobu ana lan la nu sëriñ Moussa wax te it muy loo xamante ne tey ndar gépp ak ñuy déglu àdduna ak ñuy déglu ndax Covid dafa am waaye ci télévision bi tey la ñuy defee ñaar rakka ndar noo ngi siyaar baax seex Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu borom yàggal ko lool di rendre hommage jàmbaari Serigne Touba ji Serigne Cheikh Jëmb faal xalif général des Baye Fall bi nga xam ni. dem na dëkk ji maamam yàqu fi dara defar lépp doonoonu murit di saadix waaye guddik biig xam ngeen ni bu doon ñaar ràkk yi day am maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko daan jagleel waaye bisu tey bii ndeysaan sikkim gane na dënn ñoom tubaab yi bu ñu amoon ndam dañu naan ñi ngi fàttaliku jour bi nga xamee ne am nañ ndam ci Cheikh Ahmadou Bamba muy 1895 wala muy le 10 août bi ñu defee arrestation à jeewal bi waaye tey ñoom seen defet nag moo tax nun nag nuy nuy nuy manifesté wu nag di wane jaloore yi Serigne Touba ci kanam tuuti danaa la wan feder bi bi daanu woon at mu jot dana daanu ndax at mu jot 5 septembre danaa ko wane ci tele bi ne ko bul fàttani ni bii la ngelaw li ñëwoon ndekete dinañ dem ba ay ati at Mikayil daal di participer ànd ak Asrafil mi yor ndax ngelaw li yëkkati ba ci kaw dóor ko ci suuf mu daanu ndeysaan maa ngi fàttaliku keroog Moustapha Jaxate nee na ko dàgg ngaa daanu waaye tey nga gën a daanu ndeysaan xaadimul xaadim noo ngi koy siyaar baax di ko waxuma nag beneen Moustapha Jaxate bi waxuma ko Moustapha Jaxase dafa am ak Moustapha Jaxate waaw Moustapha Jaxate ci màggal gi di sëtub sëñ Amsatu Jaxate di doomi sëriñ di sëtub sëñ Yëri Jaxate doomi sëriñ Cheikh Jaxate jàmbaar jooju waxuma waxu moom laay wax waaye waxuma waxuma meneen mi kooku moom Euh, mu ngoog ci bisu ah Fi l'islam won mi football ñu ne moy match final nous dem dema dem dem prolongation nous ñuy série ñu raté raté gagné tubaab bi daa ñëw afrique di rey rek ah, waaw di rey rek bu ngeen gëmut li yéen murit gaawaan waaw jeewal ngok fii lu ne xew na fa bis bi tisbaari jeewal dunu maa yomba <laughs> xaadim jaar na fa jàll barke borom tuba tisbaari jeewal dunu maa yomba sunu waa jaar na fa jàll barke sëriñ tuba ndeysaan Eh, Touba TV nu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziaraat parce que ñaar ràkk yi faawu murit yi waaj nañu ngi am na nag ñu may topp ci live bi muy téléphone bii ma yor eh, nga xamante ne ñoom xëy na bu ñu kiiwut eh, téléphone kooku kii rek ne leen Mame Mor tey ci émission bi lay ànd ak yéen ci ci ci ci noonu xam naa léegi Pape seex ñëw tegal leen ko nële organiser leen ko mu gën a jaar yoon waaye sëñ daam bu fekkente ne élément boobu pare na rek nga nga nga nga nga nga nga nga tegal ko murit yi ñu sant Serigne Touba bu fekkee pare na. Sallallahu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 dajeeg tubaab yi dal di yandu jeewal fanaan ba booti li ne duñu ko siiwal nee na keroog li jëkk yi xelil badar ba mu xëyee suba gibee lañu kadar keroog lee way asmaa waxlu bedri booleeg muqaddimaat bu réy bi nasri bisub keroog lay jàng fil qur'aani alal huda bal yàggi noone daane inna walilaahu laa jaw la daam fanaane ba ja saaliina jaw أيا من الله عند جاولي إبليس نضيته بأولي بمخي بسندم الواقوكي سندر مهي رامبل تبعادي فونكي لبخ سرين بايجي سرين مامور فال لا يلا خسار لنبال جا لقيتمو لسين كفروا wiinin buleen dellu gannaaw fal des biro nee na keroog ngele mu leen doon rambal jibril ko gam ba maam la àndal kaanoo ca burdoo fardu moo doon doxinu fas yi bambaay fardu nee keroog ba mi ñaane kokki ba yendu Luga sil waa Mbakke bur yàlla xaati bante naag moom laaya isaa fi a tànni gaaya keroog la yendu Luga réew mi naa ko jiyaar mu naa banaa ko inna laawu tegi daafiyu ana la si naa ngir saabiyu فلا جلي كرب صلاة أسري إن السفينة توبي خير وزري بمسال ما يرتدي قال جم دار لسامان راب جام سما ويرو بدر قال قد دو مسين بيبر دي شابا سبحان بامباي برام الأحوال سبحان من في البيري والبيري ما الجاري وكل جمع سبحان من لجاري بالسفينة في خدمة لشاب المدينة سبحان من يولج في النار عليل الإسرار في الجير كرك بزيق كرك لسيق بامبا فران داقيت دوزيج الآن جبدنا بامبا يقيت إلى نبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني الأداك الكدري نانا كرك بمين برام دار لك برامم دالي وحلمي نار فاصبر كما صبر أولو اسمي لا يبقى تبنت بامبا برمي mu daldi jaari karamat Quraysin ngir li mu ci ñun Quraysin Seex Bamba jil na fa ñaak jaan dafa xayl waraajool mak keroog la teelib xasideg asiiru ca Muhammad la am Sëriñ Basiiru keroog ba muy taalif banaa xurooru ndawal borom ndar woo ko mbër muuru yandang yarangi naa ko ñaanal dappel borom ndarob gan am na moo appal قنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب لبامبار يندن با وقدودو أنت البرد بي موي برم تويت كار لبامبارم مدودو سك موغي آي واجرم يبول غسك سخنا فاندار ويدي أو غامو بومو خي دالي خيرامو دالي كوي جراخ mu dem Ndakaaru caal xame jëlan doole waaru bisib keroog li fi la jëkk a feeñal xar baax ngir moodu njaay maa beey loolu cem taax wan ki xasiru ne ko yaa may seere damay liggéey léema del si jéeri yowmal qiyaam may ramu ahlu barri moo tax damay ramu jaalul baari te feeg may dellu si doo fi faatu danaa la fekkaat ndar li ayaatu bisub keroog nañ ko dugal gaal mu jëm Dakaaru bambana mu jiiri allamani rahmaani bi sabina bi anani xadimu sil madina fi laytul jumaati lañ ko tabbal ci neeg bu lëndam noonu naa ko lambal mu lamb doj ay gabar ay rabbu ñu toj dem mu des foobeeg rabbu mu daldi jublu xabla daldi kabar nee keroog mu tësi joon ngir tartar jàng fa saar baqara imraani jibril ti gineeg wel quraane am na fa yaari guddi lekkut naanul lulu celeer yàlla kooka neenut neena kero gis rasulullahi neena kero gis ndeysaan ah, muy ah, muy muy Baye Mama Ndiaye yàlla nañu ko yàlla fayal ci jazaw sakoor bu Serigne Moussa Ka bi nga xamante ne dégg nga li mu wax ndeysaan nee na Moodu Ndiaye maa béy la woolu cim taax wan ko aziru ne ko yaa may seere damay liggéey léeg ma dem dellu si jéeri yowmal xiyaam maay ramu ahlul bahri moo tax damay ramu ji ahlul bahri fii ak ba may dellu si nag doo fi faatu ndeysaan keroog bi su keroog biñ nee sëñ Tuubaa ñëw na ndar àjjuma ju jëkk ji ndeysaan mboolem imaamu ndar yi dañoo daje seen xutba yépp ñu ngi ko def ci sëñ Tuubaa ak di ko ñaanal naan dafa am sunu benn mbokk jullit munu fi indi nasaraan bii mosu fee indi ku dellu si nanu ñaan ba yàgg ñoom ñu daal doyatul ñu ñaan ba noppi doyatul ñoom tiijaan yooyu mu xaddami ndar yépp daal di àndandoo délégué ku ñuy wax góor gi Moodu Njaay maa béy ñëw ci gouverneur ne ko danoo bëggoon nga wax nga may nu ñu wax ak ma du Bamba mii ngeen fi téye booba fekk na le 5 septembre bi jotagul waaye bi ñu ñëwee pour wax ko rek ne ko na négocier ak tubaab bi mën a dellu ci liggéeyam bi nu agsee sëñ Modou Ndiaye ma béy nee lima li ma jaaxal mooy dama ñu ñëw di ko ñaan jek waaye ma gis ma muy bind asiru mal abraar yi ba toll ci rafixi kitaabullahi wal mustafa nabi wa azabahu fil baari nee na bi ma xoolee mbind mi te mu xam arab nee na ma ne kii day dem parce que baar yi mooy géej gi nee na ma ne pare na ndax nee na ànd naag ak ahlu badrin ak téere bi yàlla bi rafiixi kitaabullahi woon Moustapha nabi wa azabahu fil bahri in adoru nee na moo tax sonnatuma ci ñaan gi waslu naa rek àq nee na mu daal ne ko Ahmadou Ndiaye maa béy mu naar fukki at sax la la sunu borom àppaloon am nga ko da ngaa war faatu nga xam ni moom léegi na beneen problème ki ñëw pour wax ñu ne la yow sa at tay la yem loolu problème la nee na tek ab bir xawa jaxle seigne touba nako way Ahmadou Ndiaye maa mu ko làbbayka ñaan na sama borom mu jallale sab ab bama dem ci geejgi ba delusi nga bokkat ci ñi nga xamne dañ may séré no tax bi seigne touba ñewate Ndar fexé na ba gis ko ne ko man lii fi bàyyi woon moom nga dégg seigne Moussa Ka Modou Ndiaye la wolu wan ko asiru ne ko yaa may damay liggéeyi léegi ma dellu si jéeri yow mal xiyaam maay ramu ahlul bari moo tax damay ramu ji ahlul bahri fi yëg ba may dellu si nag doo fi faatu danaa la fekkaat ndar li ayaatu moo tax suñ daam ubbil téléphone bi nu àndandoog taalibi sëñ Tuubaa yi ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci téléphone bi àndandoog murit yi nga xamante ne kenn ku nekk yaa ngi bàyyi xel li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy émission bi Euh, léegi rek la ma sama sama copain Lamine Lamine mécanicien taalibi sëñ Moustapha euh, imam nee na ma dangaa tàng fi ne nii mën ne ko waaw parce que bis bii ku xamoon conséquences yi ci ne parce que ñaari rakk ndar du woon farata julli na suba ba noppi te tisbaar jotagul kon sunna la waa léegi sunna Sëriñ Tuubaa buñ ko mënta fàtte te faratay gaañi ñu mën ko wax fi mu ne rakk fi mu ne kan moo ma mën a wax samedi passé ban ban euh, ñaata euh, ràkk bi nga jullee tisbaar lan nga njëkk a tari ràkk bu njëkk bi fàtte nañ ko samedi passé bi ngay julli tisbaar démb ban ban saar nga tari ñu bari xamuñu ko bu gënee sori nga gën di fàtte waaw farata gaa yi gaa ñi di ko fàtte sunna Sëriñ Tuubaa mënuñu koo fàtte kon conséquence baa tax xaji nguur yi wër ko armée français ñëpp détecté Sénégal cerveau yëpp ñu dëpp ko ndar l'islam taxaw nee na bi may jóg di dem la ma l'islam laxasu daal di jooy Sëriñ Tuubaa naan ko <laughs> nazaani islaama inda xurbati la dal jaza yërimun ruturbati ndeysaan ñiy woote ñiy woote ci téléphone bi nañ ma dimbali ñiy woote ci téléphone bi nañ ma dimbali ñuy woote ci téléphone bi nañ ma dimbali ngir sëñ Touba maa leen ko ñaam bu ma kenn woo tey ku mën a woote sëñ daam ubbil leen téléphone bi ñu àndandoo ak man ndax damaa tàng tey barke Serigne Touba tey tey tey damaa yëg lu garaaw bisu tey bii <laughs> su tey bii bu échec lépp échec waaw sëñ Touba nee na lislaam laxa suma jooy alxuraan sëngéem bisu tey bii muy le 5 septembre. à 9h du matin, sur la convocation du gouverneur général, le conseil privé s'est réuni dans la salle ordinaire pour de cette délibération. Ah, eu un rapport bu doy waar lu ko jiitu fekk que le clerc mi nga xam ni le nekkoon Louga ak Merlin mi nekkoon gouverneur général bu Dakar seen ñaar rapport il mu àggee ndar daanuroo yóbbu leen ko sànki ko Il wax génne leen ko qui ko Afrique centrale njàngaleem dakk ci réew mi dootul doon dara ñu tas taalibe yi doomam yi gën a mag xam naa sëñ Fall la ñuy wax Cheikh Moustapha ñu jël leen dugal leen ci école fils de Cheikh fils de chef école bi nekkoon Ndar nga xam ne fa lañ daan formé yi buur yi fa lañ formé mbaaxaan bi ñu faatee la joor fa lañ formé buuna alburi ndeysaan formé leen ah di former di former ñi nga ne nañ leen ñu ne nañ préparer lolu lan lañ bind la lecture des rapports de Moussa Merlin et Leclerc a fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis et l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal <laughs> man leen ko kenn du ko fàtte kon xamu leen li xew dinañ dem ba 2021 sëtëm haman xamantene moy al muntaqa moy yor yon wi diko ko te France yéen du ngeen ci man dara seen xasaayit yi danañ ko jolli ci tunis danañ ko jolli ci Paris danañ ko jolli ci Lyon xasaayit yi ngeen bañoon mu jóg danañ ko yëkkati ci ci ci ci Vatican danañ ko yëkkati ci Rome yëkkati ko fep te yeen amul lenn lu ngeen sañ def Touba te du ngeen ci négocier ak Muntaqa koo koy Cheikhul Khadim gagné na geer bi barke Serigne Touba su fekkee am na ku dugg ñu jël ko 33 800 euh, lan vingt cinq 825 09 60 ku dugg rek ñu jël la nga nga nga xool nga wax ma loo yëg tey murit yi yëg dara laa bëgg ñu ñu ñu yeewu tey barke Serigne Touba bu kenn nelaw nu ànd dund Serigne bi ci darajey Cheikhul Khadim euh, sëñ daam am na beneen élément bu fekkente ne kenn duggul. Euh, ولا تليفون بيغا خولاتال كو موريتي دا امنا ньо خامي نين بوغ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كوكو روتينا ما خارات بنين موريت بو ييك تاي لان لا ييك تاي لا تاي لا بومو جان ني تاي لا نيو تاي موتاخ كين وخالاتونو ني اي tay motax ken defatu ñun ni ñi def poulailler ginar ci poulailler su tay bi la libre tay la yalla am lim bëggoon tay la shaytan torox bisu tay bi islam lislaam jolli jëm kaw na gañu ñu dugg nu sante Serigne Touba barke Serigne Touba te dañuy wajal magal gi nak te bu len fàtte 21 septembre moy julli geej gi waaw soxna Sodo xuma nu koy siar ak mbooleem wa julli geej gi gep le 21 septembre serigne Mountakha joxe na ndigal li barke Cheikhul Khadim waaw kenn du sëriñ Tuubaa man na démb man tey te bu subaa moo fi man loolu la yàlla dogal salaamaaleykum waaleykum salaam waaw ah. bisimilah ñoo ngi siyaara baax a murit boobu ak kii sëñ Mor Diagne lañ wax sëriñ Mor Diagne taale bi Baara Touba. waaw maa ngi lay ziar ah sëñ bi yaa baax waaye yàlla nga gudd fan. amiin barke sëñ Touba amiin. li ngay wax neex na lool man la sama xol dafa tooy ba sama toog yaa sama ronga ñu ngi sotti. ndeysaan ndeysaan na ko jar ko jar ko. li may mage bi nga bi ngay waxtaan li may yëg sama xol bi ci sëñ Tuubaa li mu liggéey. Hmm. yàlla na ko murid yëpp bokk bàyyi sëñ Tuubaa. amiin waay amiin barke sëñ Tuubaa amiin. ndeysaan. bi yaa baax yàlla na yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam. amiin amiin fan nga dëkk ci Tuubaa mbaa ndox mi sonalu leen. am ah, man nag fi ma dëkk Touba moom bariwul ndox wax dëgg yàlla ndox moom foofu moom su tawee rek mu mu ngi su sow yàlla. daa ndeysaan ministre de l'intérieur dem na fa tey monsieur Antoine Diome ñu ngi jël ay dispositions pour ndox mi génn. ñoo ngi sant Serigne Touba bu wér deel. waaw ah, kasa cay kooku cay kooku cay kooku ndeysaan. ah. dimbali ñaan yàlla na yàlla guddal saw fan yéen borom xam-xam yi nekk ci télé bi di waxtaan guddal seen fan seen amin waay amin amin amin waaw sama xol nag man dafa tooy ci bisi ba sama wax munta bari daal maa ngi sant daal sant sëñ Tuubaa daal maa ngi sant sëñ Tuubaa wér wér waay jërëjëf waay jërëjëf murid ndeysaan ah, mi ngi de ah, kii leen négrier xool ko de passar noir sœur deben. quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans notre vie. Ce qui est blanc dans ses yeux est complètement blanc. Ce qui est noir est complètement aussi. Les yeux ronds. Quel monde Celui-là. Celui-là. Celui-là. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Uh, Touba TV. Wa yaa fini. Touba TV. Wa fii de xalaat Thianda dëkk Touba moo bëggoon a participer ci émission bi nga xam ne ñu ngi koy wax ci waxtaan ci. bisimilah yow Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yow rek ñuy déglu. maa ngi nekk direct wala. yaa ngi direct yow rek la àddina bépp di déglu. waaw euh, ñu ngi bëgg nag bu baax nag ci li nga xam ne mooy émission bi nga xam ne moom nga indi ñu topp waxtaan wi. Euh, ci ni nga xamante ne bi moom nga indi jaar jaaro Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ci diggante moom ak nasaraan bi mhm. ba notteel gi nga xamante ne bi nottoon nañ ko euh, lislaam loolu la faxasu waaye li nga xamante ne bi mooy notteel gi mu nottoon ci nit ñu ñuul ñi loolu wax dëgg loolu da cee feeñ bu baax ba nga xam ne taxawaay bi nga xam ne moom lañ waroon a taxaw dëgg-dëgg ci Sénégal ak ni ko waroon a tege loxo ak nuñ ko bëgg woon yaakaar naa gañe nañ ko fu bari waaye fii ci Sénégal moom ba fi nga xamante ne si axam ba moom Xaadimu Rasuul taxaw na ci taxawaay bu ma sëkk ba nga xam ne kat ah, lii kat nga xam ne mooy yoonu murit seen posture ak seen taxawaay ak li nga xamante ne bii mooy diine islam ñi nga xam ne moom la Seex Ahmadu Bamba sàmmoon te muy nekk ndondoom euh, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu wax dëgg fa tubaarikàlla Seex euh, euh, Ahmadu Bamba liggéey na ci liggéey boo xam ne bépp Sénégalais rawatina nag umma islamique. nga dëgg euh, li nga xam ne nag mooy cinq nag euh, di septembre. Hmm. li nga xam ne moom lañ ci mën a wax ci ñaari rakkay ndar yooyu nag. Hmm. dafa nekk loo xamante ne bii nekkul di yoonu murit waaye umma islamique bi yëpp la yëkkati muy xaadir di tijaan di laayeen di ngeseen njaasaan ak lépp moom la ko defal kon boobu bisu islam kon euh, fa tubaarkalla bu ñëwee euh, ay yëkkati ñaari rakk julli ko yaakaar naa fu waaye nekk ci lislaam bi rek même boo demutoon ndar it war ngaa fàttaliku loolu tax ndax dafay yëkkati lislaam ba nga xamante ni bi ñëpp rek euh, bëgg nañ ci moo tax ñu ngi santaat bu baax nag Serigne Mountakha Bassirou ci taxawaay bi nga xamante ne bii taxaw na ko ak li nga xamante ne bii lëkkal lislaam ak kër yi diine yëpp fa tubaarkalla loolu wax dëgg ñëpp am nañ ci mbégte waaye it ñu gën a bëggaat bax ci Touba TV ci taxawaay bi nga xamante ni bi ñu ngi koy taxaw ci liggéeyal lislaam ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk di fii eh, waxtaan wi wi ñuy waxtaan ci si eh, Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te kinul lislaam ndax waxtaan Xaadimu Rasuul ne bu ñu fàtte ne mooy waxtaane lislaam loolu na ko ñëpp xam waaye eh, nag bañaas it li nga xam ne moo ci gàkk-gàkk yi nga xam ne ñenn ci yi nga xam ne dafay nekk ci yenn yi di ko wax yooyu euh, ñi nga xam ne ñooy yoonu murit ñu am ca taxawaay ak pas-pas bu ma sëkk te loolu am nañ ci muy ne coow ci li nga xam ne mooy ndigalal Cheikh Ahmadou Bamba xaatima son ñu teg suñu tànk te bañ ko wàcc topp ci fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba xaatima sol bu ñu koy def rek euh, fa tubaarkàlla danañ mën a daal di dem ci kanam te loolu daal ci mën am ngërëmal ku tedd gi Xaadimu Rasuul moo tax ñu ngi bëgg bu baax nag ci liggéey bi ñu ngi santaat bu baax kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi Touba TV te rafetlu seen liggéey wax dëgg bëgg nañu lool man nag maa ngi doon di participer ci li nga xamante ne bi mooy eh, mooy mooy eh, Touba yi waaye eh, maa ngi di bàyyi xel rawatina nag li nga xam ne ngeen koy tàbbal ci réseaux sociaux yi bi parce que am na solo lool. Hot Park lañ lay béggee nag say bët di yëwit say waxtaan euh, rafetlu nañ ko lool euh, ndax dana euh, indil ñu ci lu ñu xamutoon wala lu ñu fàtte woon wala lu ma na doon da ñu ko gën a dëgëral suñu ngëm-ngëm ak suñu nekkin moo tax loolu ñu ngi ciy bégg bu baax baax baax baax seen ak ñi xam ne ñooy kilifa yi a baax jërëjëf wax na def na contribution bu am solo moo ko sëñ Mor bi jëkk a woote léegi ci

soxna si wàññil ma sa télé ku dugg rek. ah. ma boo duggee da ngay wàññi télé ba mu jeex. ah. waaw ndax ñëpp ñëpp lay déglu yow. waaw. bisimilah. waaw man la maam Faye Seck bàyyi faalu soxna muslimatu. soxna man soxna musliman. soxna muslimatu Mbàkkeem Serigne Touba. oh rek yaa war a woote yow rek. yaay Cheikh Abdou jenn ah. ak yaay Seex ah, Abdul Muhayminu Jaxate waa waa wàññi wàññil télé bi woote bi lépp nuyoo la ak sant rek ndeysaan nuyoo rek ak sant kookoy maami sëñ Basiru Lo imaam mooy maami sëñ Basiru Lo ak Xaadim Lo imaam doomam ja sëñ Moustapha daan dem Gabon moo tax ma dem Gabon moo tax nga dem Gabon moom sëñ Moustapha Lo moom sëñ maam maam sëñ Daam Abdourahmane ak soxna Muslimatu Mbàkke ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërë ngeen jëf yal na leen yàlla yàggal amin barke sëñ na leen yàlla may fan mu gudd may nu ko nun ñëpp amin waaw yal na yàlla lépp loo nga xam ni mooy lore te nekk ci àdduna bi ci nit ku ñuul ak nit ku weex ci barke soxna muslimatu mbàkke amin way ci barke pendal mu gën tubay mi jar na araamaloo sa meetal gi mo gën kala yin aramal ma ku doomi cheikh bamba jayoon tabet ba ak sëriñ ma samba xamna bu doon goor kenn du ram di jeblo ci ku ko moy jigen ni te ngeen ngir soxna muslimat ngir muslimatu doomi cheikh Xaadim jërëjëf eh, ndeysaan ndeysaan Cheikh Abdourahmane mus na koy gërëm fa Touba Cheikh Amsatou séere ngërëm la booba mhm. wattu na alxuraan ci kër maam sëriñ ndaam ba muy xalel ci daraja baayam ndaam mhm. yow soxna muslimatu doomi seexi حكيم خير العالمين ويسمع jërëjëf jërëjëf vraiment neex na wax dëgg yàlla ah lii de moom moom sedd na xol jërëjëf ndeysaan jërëjëf soxna si noo ngi koy siyaar bu baax a baax mu mel ni sëñ daam feder bu daanu woon na daawaati jéeg trois ans ci ren indil ko indil ko indil ko indil indil ni mu daanoo taw baa ko fa fekk taw le 4 septembre mi ngi nii feder bu daanu la def barke Serigne Touba Faidherbe te kii kii kii kii kii kii kii def na lu ne Sénégal waaw kii waruñu waruñu koo samp fii fii fii maam Cheikh Ibrahima Fall lañ fa war a def lañ lañ fa war a def STTM bu mag waaw waaw euh, tegal ko murit ñu déglu. yàlla tawul taale daam nga waajalaat ñu euh, ñu jël ñaari auditeur nga tegal ñu waaw sëñ Abdou Samad bisimilah. salaam. Maam Mor. maa ngi ziar bu baax. Murit noo ngi lay ziar kooku. nañ la ba jox ma la Ablaye Dione Garaayof laay oote. ah. Ablaye Dione Garaayof laay oote Garaayof. Ablaye ñu ngi ak waa Garaayof gépp. émission bi yow ma ko tardé moom xanaa jéem dugg rek mu def. ndeysaan ndeysaan. sëñ Maam Mor murid yëpp a ngi lay ñaanal. ah alhamdulilah. yàlla na nga gudd fan. man murid yee samay xarit. barke Seex Xaadim kontaan na nga murid képp maanaam képp ku bëgg a bëgg daal ba nga xam ci loolu murid daal rek na la seeraan rek. alhamdulilah. tàmmeeloo rek kontaan nañ ci barke Seex Xaadim. jërëjëf jërëjëf. yal na la yàlla fay. alhamdulilah. dem Touba jàmm ñëw jàmm salaam. Insyaallah. Allah. mbokk sofori nag moom maa leen di laaj loo xam ne daaw ndànk rek ab sofoor laa waaye damay ñaan suñu mbokk sofoor yi ñu xam ne ak jam ah, jam. lan nit amul atum atum lëmb mënoo ko am ci ñaari fan wala ñetti fan. sëñ bi dañ ko war a liggéey rek dañ ko war a liggéeyal rek waaye nag jublu ci bisam ji pour am ah. taxal na ma de. am murit daal war a noonu képp koo xam ne dem dem nga benn yoon. waaye waaye bu dee daayira nga yóbbu caabi ji jox ko président daayira bi mu téye ko nga toog noppalu. maa ngi koy lancé suba yëpp daal nañ dem tànn. may ñaan nag suñu borom def mbas mii nga xam ne moo fi ne bu magalee jàmm ak salaam. sëñ bi jële ko fi nag dugal ko ci géej gi jëlewaat ko fi sax da jële na ko fi moom waaye mu gën ko dugal ci géej gi mu dem ak jàmm. bañ fee ñëwaat. Mhm. ñaan yàlla sëñ mu daxaa suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wër. di ñaanal sama sëriñ ba sëñ Modou Mahfouz Mbacke bu sëñ Modou Bousso Dieng mooy sama sëriñ. maa ngi ñaan mu gën fee yàgg lool Mbacke sama kanam. jërëjëf. jërëjëf sëñ euh, sëñ daam nga tegal ma élément sëñ Abdou Samad euh, mu sëñ bu ci li wax ci ndar am na benn ah, ñu jël kooku kon bu fekkee am na ku ñu war a jël ñu jël kenn nga tegal ko murit ñu déglu ko après ñu continuer ndeysaan euh, bu fekkee pare na. ñu jël kenn bisimilah. asalaamualeykum. waaleykum salaam. asalaamualeykum. waaleykum salaam. Mamor. Mbacke. Mamor sa yaramay sama yaram sa dund mooy sama dund maa la bëgg. man maa la raw. billahi wallahi bëgg naa la. ndeysaan maa la raw noo tudd. Ngor Sarr Ziguinchor laay oote nii. jabooti sëñ Touba yëpp ay suma sëriñ ji sëñ Touba ñu muriti yëpp suma sëriñ muriti yëpp laa bokkal ndey ak baay. góor. maam Ngor Sarr Ngor Alxasan Sarr Ziguinchor lay ootee nii. Ngor ziar naa la ak waa Ziguinchor yëpp. maa ngi lay ziar. Touba Ziguinchor. <laughs> yan nañu yàlla teewe si bët yi mel nii ndax man tey mooy suma bésu indépendance. tey tey la. tey mooy indépendance du Sénégal. nga dëgg de. waaw bu wóor wóor. tey la ñu libéré de. billahi wal azim sëñ mu maam Mor sëñ muy mu sëñ Mourtada mun na ma ko teewe ndax magalal nañ ko woon Finlande c'est Helsinki fële. Mhm. billahi wal azim ñu koy commencé di ko waajal mu ñoo gane suñu ñu koy ñu koy ñu ñuy maajaal di di di di di di tëgg niiree bàyyi faal yi murit yi ñëpp jaxasoo tubaab yi oote police pour ñu ñëw tas suñu jëw yi. Mhm. police yi dañu ñëw mel ni yàllaa leen tënk ñu ñëw ñoom ci seen jë jëmmu bopp bokk si maajaan yi ne leen ñoo tegee leen nii rek bu leen yàq nga xam ne sëñ Tuubaa bëre doole. dëgg la. yan nañu sëñ Tuubaa fal aduna ak àllaaxira. jërëjëf Ngor. man de jaamu sëñ Tuubaa laa. maa ngi yow. waaw boo taalee sondeel bëccëg guddi ba bëccëg fekk ko fa mu seey leer sëñ Touba noonu la mel ak yàlla kon nag man jaamu sëñ Touba laa. waaw man abadan daay man mii maay jaamam pur. est-ce que yan nañu yàlla boole ñu gisee incha allah magal bi rek yan nañ ko fekkee. te muy gën a jëm kanam. buy daj Sénégal yëpp te dinaa la xamal benn affaire Ziguinchor ku demul yaa ngi koy màggal sa kër buntu kër boo gis fii bu màggal jotee ay café Touba la ñuy teg ak ay xasida te yooyu yan na jëm kaw yan na jëm kaw yan na jëm kanam ba ñëpp Sénégal yëpp doon murid ñu xam ne dëgg fenn la jaajëf Maam Mor amin jërëjëf eh, jërëjëfati maa ngi koy ziar baax a baax ak waa Ziguinchor yëpp eh, di leen ñaanal day ndeysaan eh, sunu borom dolli leen jàmm waaye noonu laay ñaanale waa Saint-Louis aussi ndax tey ku ne xam na ni dañ daan recevoir gan yu bari waaye fii jamono toll ñoom nañu waaj màggal gi rek waaw màggal gi daal moom euh, nanu nanu nan taxaw waa Touba ci ndox mi ndox mi génn fa ndeysaan bërki démb maa ngi nuyu monsieur le ministre de l'intérieur toog nañ waxtaan ci euh, muy monsieur Antoine Diome ndeysaan muy ku baax yàgga yàgga jëf ci Serigne Touba xam nga ministère bi da koo dab da daan toogam yàgg màggal bu ci suba ga mun a jëwriñ mbàkk yu dajaleel ma jànkati xasaayit yëpp ñu ñëw sama kër yow rek laa ko yow yow laa koy ñaan ñu yëkkatul ko xasaayit te it dafa am kër Touba moo tax léeg-léeg nga dégg ku naan du ma màggali yow boobu màggaliwul amoo kër sax Touba yow pantere amoo ko fa naan du ma màggali di di di naan màggali yow danoo bëgg nga ñëw am na ñoo xam ne bu ñu ñëwul mën nañ koo yëg ñun parce que euh, kuy kuy dalal ay gan soo nee du ma màggali nar a tëj sa kër gan ñooñu feneen la ñuy dali bu dee dañoo dem feneen la ñuy dali tey bu maître ma dikke ñaane woon du ma màggali këram ñaata nit a fay dal hmm? kooku dana dana nu dama naan ko mais maître dimbali ñu non foog nga dem bàyyi li ngay wax yow tam bu ko ndeysaan maître Alioune Badara Cissé yal na yàlla dolli leeram kër la am Touba daan jëf di rey ay nagam kooku bu ne woon duma màggali ay jamono mu ne woon du ma màggali dama koy woo téléphone ñoom ñoom samay xarit lañ bu Antoine Diome ne woon du màggali dama naan ko non monsieur le ministre sa kër ña fa daan dal fu ñuy dal kon voilà ñooñu ñoo am kër Touba nekk ay ay ay ay ay ay résidence biir Touba Souleymane nee na Ndiaye ci la bokk Samuel saar ñi tekki dara ñëpp ut nañ këri Touba mais yow ngunu gu ginaar fanaan sax amoo ko Touba naan la màggali yow da ngaa naroon a dali ci benn këru jàmbur. occuper salle ba occuper salle de bain ba occuper occuper foofa fépp yow boo demul da dangay dimbali gan ya bul ñëw invité wul la waaw ku mënta ñëw bul ñëw bëggunu nga ñëw mais nga noppi nga noppi parce que sa ñàkk ñëw amaluñu njariñ sëñ sëñ sëñ daam nga xoolal ma benn élément nga tegal ma ko ndax ñooñu sax bu ma concentré yooyu ci ñoom léegi ma tàng te duma fàttaliku tey li xewoon

di bis boo xam ne ci la sunu yaakaar ja sunu jàmbaar ja sigile l'islam sigile sénégal sigil der bu ñuul taxaw ci kanam tubaab yi nga xam ne nanguwuñ wéetaluñ sunu borom nanguwuñ nguuruk sunu borom gi dañ koy bokkaale di ko tooñ te seen jëpp moo doonoon mabb diine loola nag tooñut kenn moom dafa ne woon ci diineem di jàngale di yare di jaamu yàlla fes dell ak yërmande waaye mbooloo mi màbboon jëm ci moom ci wet gu ne ak gox bu ne tax na buur yi àddina yi fiire ko ak lenn ci ay doomi soxna di ko ruuxale ak tubaab yi tey ruuxale ga day yomb ndax lañu bari nangu du ko nangu moom ci maslaha lu diineem nanguwut ak lépp loo xam ne fulla ak fayda ak jom ak mbañum rus nanguwu ko mu gànt ko fa mu ko war a gàntoo loola day tax luñ ko jiiñ ci loola day yomb gëm waaye lenn loo xam ne war naa man a tax ñu jële ko Mbàkke Bari yóbbu ko ba jàllale ko Ndakaaru mu dem ci géej ga mënuñu koo gis ci ay jëfam wala ay waxam waaye waxi noon ci lañ sukkandiku ba àtte ko ci bis bii ndax le 10 août la génn Mbacke Bari fanaan jeewal la 11 août la àgg Ndar ñu bu ko cib dal dalal ko fa mu nekk fa nag bala cinq ñu door ko àtte diggante boobu yebal nañ ay nit ci moom di ansa secret wu ci moom di xool ba xam luy mbiram dëgg-dëgg lañ bët ko biir ak biti gisuñ ci moom dara ba am na sax ay kilifa yuñ waxaloon ne leen moom de dafa mel ne liñ doon wax ci moom gisuñu ko ci moom waaye nag dafa nanguwut a ñaan te bu ñaanoon rek ñu bàyyi ko mu dellu ne bind rek expliqué mbiram wax ne daal moom day jàngale day def nangam wootiwut jihaat woo wax nangam wax daal loolu bokk na ci ñañ ca taamoon góor gi am Amadou Ndiaye maa bi ak ku ñuy wax jaaxa siise ba njëkkee sëriñ bi fi ñu dalal sëriñ bi wax ku ne ko tubaab bi te xam naa boo bindoon rek leeral leen sa mbir am nooy wax ñoom rek ñoom noonu mën nañ cee jàpp ñu bàyyi la nga dellu ndax dafa mel ne dañ lay réere woon rek waaye ñu ngi lay xam si mooy leen bindu ma woon wala ma wax lu ma indi fii kon du ma bindaat wala may wax lu ma fi jël si lu ma fi jëlee di ma delloo sama kër daal ne yéen nag tubaab yi am ci man kumpa waaye yéen bëgg naa leeral leen sama mbir ñoom dañoo jàpp ne dañ maa jàpp waaye man damay dem liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yëkkati assur won leen ko ne leen lii mooy sama seere danaa dellusiwaat fii incha allah Amadou Ndiaye maa bi daal di wëllalanteeg moom góor gi jaax siise it ne ko man dey ci tarixatu tarixatul xaadiriya laa ne te jeex naa takk waaye nag jox naa la sama xol de te nangul naa la nangu cër bi la yàlla jox kon nag jenn doom laa am Bachirou Cissé lu tuuti la waaye jox naa la ko waxtu woo ñibbisee na nga ko laaj fu mu mën a ne danaa ko bind wax ko samay bokk yaa ko moom foo rek na ko laaj jël ko ñu daal di maslaa waxtaan joxante ay hidaya sëñ bi ni bari woon tiraanga nituk diine koku massa mas a la joxi téere jox la ko lañ jox lay mbàjj jox lay yu baax nan la bindo ñu dal tàggoo ci jam kon tuba bi lañ bëggoon ci mu delu gannaaw bind te sëñ bi jom ja ak ngor ak fulu ja mayu ko muy talal loxo kudul yalla lastu aqafu durra qalqin baada ma fawattu amriya ila rabbi sama kon fa la am ñoo xam ne ñoo ngi continuer di ruuxale di wax ci moom lu ne ci xeeti doomi soxna yi ak ci ceddo yi ak ci ruuxalekat yi dagi buur yi biñ demee ba xam ne nag léegi amatuñ pexe ci moom faaw jëlee nañ ko fa ba noppi te faaw ñu yóbbu ko ñu sos seeni sos daje nag ca tri fañ jàpp ne muy seenu tribunal dafa lañ ko war a àttee ñu woo ko fa bi mu egsee julliwut ci biir bureau bi fi mu njëkk a jot rek fi la kàbbar julli foofu mën nañoo tuddee ne mooy salle d'attente bi danaa ci dugg sax taxaw foofu leeral ci ne sama benn xaritu góornóor du ma tudd turam boo xam ne nekkoon na ndar moo ma leeral ne ma ci jamonoy Senghor la Senghor modifié bureau bi fi bi jullee woon mu ne nañ fexe ba mu nekk néeg bi néegu gouverneur ndax daa bëgg bu fi ñëwatee buy dal dal foofa fa lay fanaan ba foofu sëñ bi jullee woon dañ koo modifié fi ñu jàpp ne fi la jullee bokkut ak fi mu jullee foofu mooy néeg gouverneur tey baaxe na ma sax ba woon ma ko kon sëñ fa mu njëkk a jullee fa mu duggee rek moom loolu defu ko ngir naqaral leen defu ko ngir manifester wu defu ko ngir dara ñi ko xamul ñoo koy réel waaye loolu aaday sëriñ bi la sëriñ fu mës a dugg rek te muy waxtu julli day naafila ñaar rak mbaar ci biir këram sax mbaar mu ne tëll rek la muy jëkk a def julli fa ñaar rak mu gëj a dugg sax du duggee day julli ñaar rak ñaar rak lay ubbee ne boo seetloo barab yi mu julli ñaar rakk am na yu gën a xat biro ba ndax buñ ko dugalee ca fu metti foofee ràbb ya fa mu xat ba mënta si gi teew junj na ba julli ñaar rakk Baqara ak Ali Imran ca Ndakaaru boo xoolee ci géej gi barab yu xat yëpp da ciy julli ñaar rakk fu ñu ko mos a li muy njëkk def mooy julli ñaar rakk doon na lu ngeen may doy kon ñaar rakk yi noon yi la demee waaye dafa am lu ci xew bi mu dugg ci biir rek lal der bi julli ñaar rakk ñaari rakk yi Baqara ak Ali Imran la ci jàng te mën na quarante cinq minutes waaye yàgg yim yàgg yim yàgg. ak raglu gi sëñ bi raglu ak xëyba gi nekk ci moom li muy wax ne waaye suma taxaf ilaahaka al ahad ka min xawfika hoo kullu ahad waxtu woo ragalee yàlla dëgg dëgg dëgg ragal lu yàlla da ragal yàlla day fa mbindee fi yëpp def ci ñoom ñu ragal la ragal googu yàlla def ci moom ak wegeel googu yi nag moo waral ñi nga xam ne ay gar gar ñoo doon garde biro ndar bi di ay takk der te xam nga boobu tubaab bi day jël ci doomi soxna yi ci ndar yi ci ëpp dañuy jàng am diine bokk fu baax ñu jël leen di leen liggéeyloo ñi ci ëpp ñu xam ñu xam diine lañ diine di diine bi sëñ bi julli dañoo mujj ñoom mënatuñ koo muñ mel na dafa am lu ñu leen solo ñu dindi seeni bot ànd ci julli gi mel na lu ci barkeelu kàbbar ànd ak sëñ bi ba bi tubaab bi génnee daa yem ci ñoom gis ñu ànd ak sëñ bi julli loo ko loolu moo ko gën a merloo nga xam ne da doon bàgg di xult di coow ba ni sëñ bi noppee mu ne li ko gën a metti mooy julli gi mu julli ci sama bureau bi boole ci julliloo sama kat yi te fii du bari bu julli te loolu taxutoon ñu andi ko fi loolu moo ko gën a gën a merloo dafa feeñ ci att bi sax bi mu duggee nag dafa am kiimaan gu ci am Sëñ Abdul Ahad nee na diw sàngam su ku sant suran la moo ko ko nettali ne ko damaa fekkee julli damaa fekkee atte ba yàlla dafa dogal ma fekkee atte ba moo ko nettali ne ko bi mu jullee ñaar rakk yi ba ñu woo ko ci biir bureau bi mu fekk ñépp toog nee na kaala gi mu yoroon ndax sëñ bi daa baaxaw moom moom ca ca bu yàgg ba at yi gënee néew ba nag it kaalaam kenn mës a gis mu dindi ko bi mu duggee dañ ko ne fii nag liñ naan mbaxana benn la fi doon fii wuroo fee sol mbaxana dindi sa kaala mu gàntu kilifa gi daal di yebal kenn. ne ko demal dindi mbaxana mi ak kaala gi kooko ba mu fabee loxoom jëm ci moom bëti maat seetetetet jërëjëf sëñ Abdou Samad eh, moom sëriñ Soy bu Mbàkke eh, ak a baax ak bëgg maamam lool waaw loolu moom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xam nañ ko moom eh, jo joxaat ma ay ay ay ay téléspectateur rek ndeysaan yu yu dugg ma xool ñoom it seen contribution ba la noo dem ci sëñ Moussa Fallo sëñ Moussa Fallo moom sëñ daa Abdourahmane euh, lim ñu wax ci bureau ndar moom itam parce que bi kii yam yi bari na te fan yi bëgg naa di ko def par parce que moom daf daf ko def ay ay séquence lu muy lu ma yàgg dégg salaamaaleykum waaleykum salaam xaadim Samb daanu na salaamaaleykum waaleykum salaam euh, sëriñ Maam Mor Mbaye kooku yoonu géej gi maa ngi lay siyaar bu baax waaw waaw man maa yoonu géej gi loolu de dëgg la Ah, sëriñ Sam Seck Rijal la. sëriñ Sam Seck Rijal moom sëñ am di wax ne tey jii de moom. sëñ Sam sëñ Sam. waaw sëñ Mamour waaw. may ma ma présenté ki dugg mooy kan ba noppi. bisimilah. ki dugg mooy sëriñ Sam Seck. di doomi sëriñ am di Seck Rijal moom sëñ Mor Seck Rijal mi sëñ Touba ne woon may naa la ay bis nga ñëw nu waxtaan. maamam la sëñ Touba ne nan laa tudd. mu ne tekk mu ne ko ahmadu laa tudd ahmadu laa tudd ahmadu laa tudd toogaat ba yàgg ne ko rijaal ndax xam nga fu ma dëkk mu ne tekk mu ne ko aljana laa dëkk aljana laa dëkk aljana laa dëkk toogaat ba yàgg ne ko rijaal ndax xam nga jan àjjana laa dëkk ci àjjana yi sëñ rijaal nee na ma ne tekk rek ki dugg laa bëgg a wax mooy kan ba noppi nee na ma ne tekk mu ne ko man dey firdawsi laa dëkk ne ko rijaal mu ne mun ne ko àjjana jooju amul kenn ku yàlla may nga mën faa yóbbu sa kenn amul kenn ku am maqaamam yàlla may la nga mën faa yóbbu sa kenn toog ba yàgg ne ko xanaa Seydina Muhammad sama sang ba te ginnaaw xare ba dara la ko man dal ne ko Ahmadu mii nag fa la dëkk rijaal ak ku ko yaakaar sëñ Saam bàyyi naa la ak téléphone bi yow rek lañuy déglu barke sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Mamour Mbaye gën ngaa tooyal sama xol lool. maa ngi jégalu nag. <laughs> non non moom kay day mel daaneel nga ma sax nag ndax noonu nga ko waxee rek noonu la demee de wallaahi alhamdulilah. waaw sëñ bi jàll. kaay na wax di yombut waaye si Mor Seck yàlla ko waxoon. Mhm. ca waxtaan wi yokkoo ci wàññiwoo ci noonu rek la demee. alhamdulilah. waaye sëñ Mamour gor su gore si. bi sëñ Abdou Samad moom sëñ sono mi wax mënatumaa téye sama bopp. ndeysaan. ndax. Euh, suñu musaaka daa wax ne dogoon kon ak dem gi wolof nasaraanu te billaahi kon ñëpp dem niiraanu maanaam bu doon doon la cinq le cinq septembre xam nga ki ki kii wax wolof nasaraanu kooku jamono yi pël la moom suñu musaaka mhm. waaye dañ ne dogoon kon ak dem gi wolof nasaraanu kon nag pël yi ñëpp a ci biir nasaraanu gi kon su boobaa su sëñ Tuubaa demutoon ci géej gi ñun ñëpp sawara lañ jëm loolu moom amut sikki sàkka jàmbaar jooju ñu libéré am ngor gu maanaam def njàmbaar googu mu def xoola suñ ëpp sama ni mu koy benn tale benn par benn ca ngor ga ca jom ja ca fit wa nga xam ne tubaab yi mos nu koo rafloo ci dara dara dara lu toll ab ab tomb ci lu mu war a na def ak lu mu daan def ci noonu la duggee seen loxo ba génn ci seen loxo mën a luñ ko dara mu dellu si waat délibéré le islam sëñ Maam Mor Mbàkke Sénégal gii de Sénégal goo xam ne man damay damay gis sax léeg-léeg ay imaam yuy manifesté naan Pogba dañ koo tegal bu téyub sàngara mu wàcce ko ne boisson lay naan di ko mën manifesté woo xoolal sëriñ tuwaa mi libéré adduna bi ci islam tey kon ku dëkk Sénégal nu nit mën a dëkk Sénégal te doo mën manifesté woo la 5 septembre bi ak ak islam ak ak islam ji nga xam ne sëriñ tuwaa da koy yëkkati ca kaw a kaw a kaw taawu ko ba laal suuf ba Serigne Mountakha mën a am audace ne bu mu laal suuf ñun ñëpp nañ ko yëkkati teg ko ci kaw lépp di njàmbaar sëriñ Serigne jàmbaar ji nga indi tey sëñ Mamor. maanaam muy le cinq septembre bii ku gore wala nga wéet ci sa biirum néeg xam nga ne donte la comme comme comme Léopold Sédar Senghor mi nga xam ne du woon sax jullit <laughs> mooy defar fa mu jullee woon di ngir bëgg koo barkeeloo di fa fanaan kon jullit réew mi moom wax kenn waratu leen a wax Sëriñ Tuubaa amul morom tey te du ko mu am bu ëllëgee noon na ñépp maase nangu ne moom la sëriñ yonent bi yebal ci soow jant ngir mën a ramu askan wi loolu la yàlla dogal amul dendale amul tëkkale amul lenn lu dul rek ñëpp nangu na Sëriñ Tuubaa dong la waaw ah mag ñi gën a baax nag barkeelu nañ ci moom mag ñi gën a baax ci dëpp woon ak moom jamono barkeelu nañ ci moom ah, waaye nag Sëriñ Tuubaa rek a de loolu daal laa lay wax sëñ Mamoor nga baal ma nag ci waxin wi ndax ab jël ci ma fekk nga dikkaat man fekk nga fekk nga mën a dër ci suuf barke Serigne Touba nga waaw fekk ma fekk nga da ngaa dolli waat nag matt mi ndax jëm muy sëñ Mor Seck Rijal nga xam ne moom dafa seey Serigne Touba la ko Serigne Touba waxoon rek ba nga ñëw wëgut ci man doo dara bi nga jógee ci man it dara yokkut ci yow tam tam ta ay junni moromam lépp loo gis ak taal boo gis Serigne Touba dong nga foo mën a seen dara di bër Serigne Touba dong ngay fay Serigne Touba képp kot dong amul morom Serigne Mamour yow nag ah xam-xam loolu moo tax yow xam nga ma xam. waaw yow yow yàgg yàgg ngaa sonnal Serigne Touba xel koom ñoo fa daan andi tumuranke ànd di takk ay pot. ànd di ànd di di di ànd fa di di liggéeyal Serigne Touba ci Serigne Saliou. ànd fa di liggéeyal Serigne Touba ci Serigne Mbacke Sonlo ci ron sëñ Cheikh Rijal Seck gëm Bamba mii xel ba maam Cheikh Rijal tey. di ko siyaare di ko ndokkeel di siyaare ahlu rijal gépp nag jërëjëf jërëjëf waaw di di siyaare sunu buntu ci ñoom ñëpp tey daa mel ni tey daa mel ni seen déguisement bi sa sax laa sol de daa mel ni waaw moom kay da da moom moom nga sax amul sikki sàkk ndax yow da nga yàgg bokk ci bi bi moom nee sëñ Moustapha Ndiagne piraat naa ko bi moom nee sëñ. gis nga gis nga sa bun sa bëgg sëñ Tuubaa yi dafa yàgg ci yow man mi la xam bi ngay tuut tànk ba léegi dama koo xam. xëy na nit ñi ci bi lañ koy tàmbalee waaye man mi la xam bi ngay tànk ba léegi. yaa ma yoroon xel comme de ndeysaan sëñ sëñ dong nga ma sa seey sa xol. mu doon dund lu sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf jërëjëf eh, jërëjëf Serigne Sam Seck Ridial ndeysaan soxna su Diouf mi ngi wootee ci suuf xam nga moom eh, ku ku ku ku ku ko eh, waa ahlul rijaal gépp la noo ngi koy siyaar baax a baax téyel ma téléphone bi tuuti rek eh, sëñ daam ndeysaan mu mel ne kii dugg léegi bi ñu daan dem xelkom li may wax ay 94 ñoom laa àndal xelkom 95 ñoom laa àndal xelkom 1996 ñoom laa àndal xel koom waa Kër Baye Rijaal yi ñoom laa àndal xel 1999 ma ànd ak waa Daaru Salaam yi xel kom xel kom dem naa fa 15 fois yoo xamante ne ñaar yi waa Kër Sëñ Fall laa ko àndal benn bi ñaar yi waa Daaru Salaam waaye li des lépp waa Kër Serigne di Dial Seck waa Kër Sëñ Mbàkke Soxna Lo laa daan àndal dem xel kom ndeysaan am na boo xam ni. ndeysaan bàyyi di jàll daan tawam yàgg nañ ma woowale Mamor sama xarit tey ñooy bokk reer xam nga loolu loolu loolu loolu lu rëy la barke sëñ Tuba euh, sëñ daam da may tegal élément sëñ sa faaloo bi rek bu ma ñëwee ñu daal di ñu daal di ñu daal di yëkkati ñu daal di yëkkati jotaay bi euh, Serigne Moustapha Lo lim nu wax ci ci 5 septembre wax nu ko ci bureau Ndar wax nu ko ci ci ci relaté yoonu géej gi nag waaw ndax moom moom man dama ko dama ko bëgg moom sëñ Moustapha Lo mooy way juru sëñ euh, Basiru Lo imam waaye itam mooy way juru sëñ Xaarim Lo mi nga xamante ne suñu ñaari imaam yi ne masaalik yëpp yàlla nañ fi yàgg te wér mooy seen wayjur waaye soxna muslee ko meññ ndeysaan ñuy ay murit yoo xam ne euh, boolewun dara ki wax ñoo ngi ñaan suñu borom dolli leen jàmm ci barke Sëñ Tuba euh, bëggoon naa euh, émission bi gën a continuer sax mais nañ ma tegal rek sëñ mu Moustapha Lo lim nu indil bureau Ndar ndax 84 maa rab bu ya fa teewoon sax sëñ Moustapha Lo wax nanu ko te loolu saa su ne dama ci insister ndax man Eh, mag ña laay déglu lan ma wax laay jàpp te it nañu xam ne tubaab yi moom bind nañ lu bari waaye lu bari dañ koo nëbb tuuti lan nu wan moo tax moom ku sa wujju di sëlëm doo set loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax sëñ daam ñu dem déglu Serigne Moussa Fallou dellu siwaat ci émission bi euh, mu mel ne bu fekkente ne ni kon kon kon kon àndal waaw Serigne Moussa Fallou ko jàpp rey ka ca di tafsir Maxtaar Binta di rakki ma ngi bàlla cooket mooy rakkam wala magam rakkam daal wala mag ñoo bokk bàyyi daal waaw moom itam xam nga gaynde la ko jur waaw moom itam ñu daal di koy mu bañ ñu dal koy rey léegi numéro deux un ak deux ak trois dee nañ numéro quatre di Serigne Touba moom ñu wax ko mu wañ ñu daal di koy boolee gaynde gi ca ndar gaynde gi waaf ci kanamam ñu daldi fexe ba taqal ab gowar deret daldi ñëw ne numéro 5 signal mu daal di gaaw signé ñu ne ko acca daal di woo numéro 6 mu bañ mu mu daal di signé euh, waaw ñu woo numéro 7 7 moom ñëpp xam nañ ko waaw dégg moom it mu daal di ñu topp di signé ba ca 83 ba ca 80 euh, ba ca 79 waaw 79 waaw ca loola nag ñu doon conseil privé daje ginnaaw ñee dee nañu ñii sëng nangu nañu moom rek mu kii ñu ne ko nag yow yaay anti France la def ci accord yi mooy xam nga wala fii léeg-léeg dañuy dañuy. nyangal nan de de yalla du bur may bur nangam waye lolé itam danaka lolé la ëmb ndax man mi signé fi ci souf ma ngi séré né lepp lo xamné li lo yak gouvernement lo yak doxu activité gouvernement français lolé buma ko yalla digaloon ni ma ko def lepp luy tax gouvernement français activité mana mana jall lolé buma ko yalla téré woni dana ko def waaw mooy mooy loolu rek lool lëmb waaye nag nii lañ ko bindee waaw noonu la ko tubaab bindee moom moom sëñ bi moom xam nga dafa daal di signé foofu qul huwa allahu ahad allahu samad lam yarit walam yuulad walam yakun lahu waaw ba mu signé loola daal di def xasidaam googu ilhamu salaam fi zabbi an diini islam xasida ga la juri ba xasida ga jeex moo tax mu ne mu tuddee ko ilhamu salaam fi zabbi an diinil islaam kooku moom su ko defee man ngeen a delluwaat ca xasida ga euh, man koo firi lam lam ca takk yàkk tubaab yi moom maara day tali yoo lam ca yàkk tubaab loo tax ñu daal di ne kii kii moom gannaaw jéem nañ ko rey mënuñu ko léegi dañ koy sànki dañ koy génne réew ñu daal di dajaloo conseil privé daal di wax ne fan lañ ko war a yóbbu ñu ne ah, nañ yóbbu nañ ko yóbbu Afrique centrale ñu daal di décider ne kon nañ ko yóbbu Afrique centrale ouest africain daa bari jullit te Afrique euh, Afrique centrale ay sowaas lañ nègre bantu lañ duñu ne ci dara yoo xam ne yu am culture lañ léegi ñu daal di ne waaw muñ ko yóbbu Afrique centrale buñ ko bàyyi Brazzaville de ndax ñoom dañoo civili xaw a civilisé comme mooy capital ba ñu ne nañ ko yóbbu Centrafrique ñu ne ah wetam gaag Soudan ay jullit lañ am na benn benn jullit ñu ne Cameroun ñu ne ah foofu waxaale wuñ ko ndax majorité bay jullit lañ ñu ne Tchad ñu ne waxi nopp bële ci aw sax xam nga ci ci ci Cameroun ñu ne léegi nañ ko yóbbu fi gën a sowaase fi gën a sowaase nag mooy Gabon ñu daal di signé décret ba le 5 septembre 1895 tombeeg fukki fan ak juróom-ñett ci weeru euh, diggi ci la ñu signé décret bi pour war ko déporter bi ñu signé décret bi war ko déporter. Euh, jërëjëfati mu mel ne euh, sëñ Moustapha Lo xam naa ni ko bari lu ma koy wane ci télé bi ndax it lu bari da cee wax. momit it euh, sëñ Abdou Samad yàlla na ko yàlla fayal ni ko sëñ Saam Seck Rijaal waxee ndeysaan sëñ Saam di ko nuyu di nuyu sëriñam bu baax ba sëriñ Moustapha Ndiagne sëñ Moustapha Ndiagne am personnalité ngoog ko xam boppam a ngoog ku téye yoon wi comme way juróom wa bàyyee la ngoog kon yàlla na ko may jam may dolli ko sutura dolli ko ak mboolem seex sim àndaloon nyep. def nañ émission boo xam ne seetaan ngeen ko muy moo doon wax keroog moom mi dugg léegi muy Serigne Sam xam naa sax du ñàkk bis moom mu indi ko nag ci télé bi euh, ñu ñu fàttali ko suñu xel ko ñu yàgg-yàgg yooyu mu mel ni lii rek la woon tey dañ leen doon dugal tey euh, sëñ daam euh, tegal na leen tey Faidherbe bi daanu woon nga xamante ne këlëb la def ngelaw laa ko fa fekk rek yëkkati ba ca kaw rek dóor ci suuf ne ko yow moom bisu cinq septembre ci lañ lay wan ne gañewoo yow waaw gañe woo ndeysaan te lu ne def na ko fii ci ay ñaawtee ah, lakk ay daara lu ne def na ko fi rek moom feder bu moo tax nañu nañu nañu nañu amaat jom nun waa Sénégal taxaw rue yi ñu tuddee tubaab yooyu nañ ko dindi waaw ay rue vir ah boo duggee ndak ndakaaru ñu naan la fii mooy rue Pétavin ñu naan la fii mooy fii mooy salle de fii mooy nangam fii mooy nangam nañu deñ ñu tudde ñu tudde ñu tudde rue yi sunu mag ñu baax ñi barke sëñ Tuubaa waaw xam nga ni sardiniers yi waroon nañ koo tuddee Cheikh Ibrahima Niass waaw ca Kaolack waaw waroon na sardiniers yi man moom laa bëgg nañ ko ko tuddee hmm? ñu jël rue Virmo Virmo nañ ko tuddee nañ ko tey nañ ko tuddee Seydina Limamou voilà ñu jël nag ñu jël nag autour à péage bi nag tudd ko ki demoon Lambarna ak Mayumba ñoo ngi leen di siyaar bu baax di jégalu. Euh, fan yi moom télé bi taxawaat na ndax màggal lan jëm 21 septembre mooy julli géej gi sëñ Muntaxa wax na soxna Sooda ni ko defe ko ni nga ko defee woon daaw waaye nag nañ waaj màggal gi kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf sëriñ